gan gi Boubacar Seye la wuyo maa ngi lay nuyu sëñ bi Seye. Euh, Jacques maa ngi lay fay. yow yaay njiital euh, ONG ONG donc euh, Horizon Sans Frontières ñu wax ci tukki bi nga xamante ne njiital rassemblement national français bi amaloon na ko ci Sénégal Marine Le Pen ñetti fan la fi daal di def muy tukki bi nga xamante ne jur na lool coow ci Sénégal ak sax ca biti réew. ONG Sans Frontières moom bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo ko doon ŋàññ lu ko waral. waaw xam nga comme ni nga ko waxee Jacques euh, Marine Le Pen euh, en Afrique au Sénégal xel def ko nanguwul sax d'ailleurs voilà xel moo mënta nangu Marine Le Pen jóg tey nii dafay visiter le Sénégal euh, li tax parce que même soo visiter tey damay wax ni sax jarul visiter l'histoire de la France et de l'Europe pour xam ni le Front national de Marine Le Pen moo nekk le levier moteur sentiment des contre-valeurs yi nga xam ni moo poussé tey euh, la France et l'Europe euh, de vers l'extrême droite le racisme et la xénophobie hmm. tey boo xoolee doomu u ñu ñu ngi dund des moments insoutenables de haine ci biir France ak ci biir Europe euh, ki nga xam ni tan moom mooy nekk la mamelle nourricière mooy Marine Le Pen mi nga xam ne tey moo jóg ni tey dafay visiter Sénégal un pays de noirs noirs yi nga xam ni bëggu leen sax gis ci photo sur le sol européen kon kooku tey moo ni dafay visiter Sénégal moo tax ñun Horizon sans frontières bi nga xam ni c'est une organisation européenne plutôt Europe de défense d'orientation et d'intégration migrants ci biir àddina bi ni visite boobu ñun d'accorduñ ci dañu dem sax ba wax ni tout sauf Marine Le Pen Marine Le Pen warul sax xalaat naan day ñëw Afrique. Hmm. tukkiyam boobu daanaka amul tamit lu mu soppi ci taxawaayam ci wàllub migration bi ndax ñëw na ba ci ndakaaru waxaat ni politikom dëgg mooy ñu daal di wàññi eh, ci ni mu gën a amee solo lu jëm ci wàllub migration bi ndax loolu bett na la mu ñëw ba fii waxaat ko fi. <laughs> waaw xam nga Jacques Marine Le Pen moom xamul sax lan mooy migration Marine Le Pen xamul sax l'histoire de la France parce que ku xam histoire de la France di nga xam ni dafa nekk une terre d'émigration depuis la seconde moitié du dix-neuvième siècle doo waxee ni euh, may rappeler ni gis nga mais déjà en mille huit cent quatre-vingt-onze rek la France amoon na plus de un million de migrants hmm. tey soo xoolee la composition de la population française di nga gis ni vingt deux virgule cinq pour de cette population dañu am un antécédent migratoire mooy lan ñeenti français yoo jël kenn ci maamam gan la kon kooku euh, bu jógee di wax lii ci migration kon di bu jógee di xeex noir kon kooku xamul lan mooy migration xamul sax histoire u dëkkam euh, li intéressé Marine Le Pen leen rek la c'est développer une immigration européenne ak ci biir France parce que pour Marine Le Pen euh, euh, la France est blanche l'Europe est blanche et judéo-chrétienne kon xam na ni ñooñu Europe sax Europe sax pour jàmm àddina Europe sax euh, soxlawul ku mel ni Marine Le Pen Marine Le Pen immigration lenn la rek pour moom c'est une marchandise électorale pour gagner des élections immigration c'est une façon juste de valoriser les questions identitaires loolu rek moo tax a jóg Marine Le Pen xamul dara ci immigration donc euh, amul idéologie amul xam-xam amul gis-gis alors euh, elle s'est rendue tristement célèbre avec son père sur les questions migratoires ci rek tënk ko ci ban nit ku ñuul ak ban islam. Mm-hmm. ñu ñu mel ni yow wala ñi xalaat ni yow bëri nañu ñu jàpp ni kon moom Marine Le Pen euh, daanaka euh, ci tënk ku raciste la ba ma ko déggee ci kàddu yi mu yëkkati ci ndakaaru fii nee na loolu lu ñu koy waxal la waaye amul euh, benn yoon mu gi ndax mën nañoo jàpp ni Marine Le Pen bi ñu gisoon rawatina ci campagne électorale yi wees moom moo nekk ki ñëwoon Sénégal. waaw mais dara changé wul dara changé wul évidemment su su jógee di ñëw Sénégal mënul mënul mënul beneen discours bi du li mu fi wax parce que c'est c'est c'est c'est dans une stratégie de séduction c'est la stratégie du désir alors que Marine Le Pen xam na ni Marine Le Pen kenn bu ko gis ci àddit à part euh, ñi nga xam ni ñoom ñoom la bokkal idéologie l'extrême droite en en en en en en en Hongrie ñoom Victor Orban euh, en Italie ak yenn dëkk yi nga xam ni ñooy développé à part ñooñu naataangoom yooyu Marine Le Pen amul benn dirigeant ci addina bi bu ko toog moom Marine Le Pen ñëpp koy dam Marine Le Pen amul xam-xam amul vision donc Marine Le Pen du koo xam ni Afrique daf ko war a dérouler euh, vraiment le tapis rouge euh, ba koy recevoir ba mu taxaw sax naan wala les africains africains ñi déglu Marine Le Pen sax dinañu dinañu dañuy reetaan après parce que mënoo saaga africain yi ñëw ñëw seen dëkk naan leen war a war nañ leen jox nangam lii war ngeen am bii place war nañ def li ba loolu mooy nit hmm. mu nekkoon pression bu takk waaye teewul njiitu réew mi dafa jël dogal daal koy dalal ca de la république daanaka ndaje bi sax ba mu amee ba noppi la ko ñu bëri daal di yëg euh, kon mu mel ni seen pression bi yëpp amul njëriñ ndax mujj na dajeek njiitu réew mi Macky Sall. waaw ñi fi nekk dañoo daf lu leen neex rek. parce que ñun alerté nañu woon ni Marine Le Pen de vraiment kenn waru ko talal Sénégal kenn warul honorer la visite de Marine Le Pen au Sénégal parce que euh, dirigeants sénégalais yi les autorités sénégalaises bu ñu recevoir Marine Le Pen mooy ñu ngi banaliser son discours ñu ngi koy cautionner ñu ngi koy appuyer alors que ñëpp xam nañ ni euh, Marine Le Pen discours am yëpp mu ngi ko tënk ci la haine du noir mi ngi ko am contre l'islam loolu mooy xeexam ci àddina kon tey euh, des fois de me suis la question est-ce que euh, le président Sall a mesuré vraiment la responsabilité qui est la sienne dans cette visite-là parce que nag Sénégal c'est une porte d'entrée Marine Le Pen du ku ñuy la comme ni nga ko waxee léegi gis nga visite bi en quatre catimini la dañ ko nëbb mais gis nga Marine Le Pen Euh, dafa dafa xaar ba egg dévoiler le contenu de seen liste alors que ki ko doon ki ko doon recevoir daf ko doon nëpp donc kooku mooy ni ki Marine Le euh, Pen la mel donc lii rek war na war na jox leçon les africains yow ñu ngi lay nëbb dina kii nga egg ni wala kii nañ ma recevoir nañ ma ci doon wax yëpp mu jëm mu parce que recevoir nañ ma kon tey xaawi na sutura président Sall kon am na yoo xam ni mënoon na ñàkk parce que Sénégal nag euh, dëkk bu mag la te tey dama jàpp ni Sénégal dafa soxla des dirigeants de rupture hmm. donc euh, li am ni c'est une démarche suicidaire c'est une démarche boo xam ni baaxul pour le Sénégal avec cette visite là dama jàpp ni même que le Sénégal a a a à sa grandeur hmm. booy wax dirigeant de rupture gis nañu tamit ci jamono yi mu mel ni euh, diggante bi xaw naa soppeeku muy euh, Ousmane Sonko ak waa France ndax gis nañu entretien yi mu amal yenn média français yi ndax ku mel ni moom nga mën a jàpp ni mooy dirigeant de rupture non mais pourquoi pas Ousmane Sonko parce que au mois bañ na parce que tey xam nga li xew Afrique euh, il faut de nouvelles perspectives panafricaines euh, africains yi sonn nañu yàgg nañ leen exploiter moo tax tey les africains ont dit non à cette nouvelle forme de néocolonialisme de la France boo xoolee ñu sax am na ay années ñu waxoon non au francocentrisme parce que France dafa ñëw rek jël Afrique di ko fawee jël africain surtout l'Afrique l'Afrique occidentale française parce que boo xoolee euh, euh, jëfin yi bokkul avec par exemple le Royaume-Uni l'Angleterre kooku dafa joxoon ay autonomie à ces à ces territoires France nag mosu fee jógee mu ngi dans les cercles de décision léegi nag sénégalais yi africains yi def nañ ba nga xam ni gisoo kenn bëggatul France gis nga Mali commencé na Burkina joxe na dem ultimatum nañ génn suñu dëkk mais ça va faire l'effet domino et jeunesse bi tamit bañ na jeunesse bi bañ na hmm. donc loolu moo tax effectivement tey dama jàpp ni dëkk bu mel Sénégal war nañu xoolaat Euh, ñu parce que défi yi nuy xaar moo moo bëri les défis sont majeurs gis nga tey les problématiques liées à la jeunesse les problèmes de mauvaise gouvernance gis nga tey pétrole ak gaz bi génn nan la ñu mën a fexee ba ba ba ba ba ba régler les problèmes de l' extrême pauvreté nan la ñu mën a fexee ba xale dootu dee ci géej gi nan la ñu mën a fexee ba réduire les les les inégalités sociales ba ku nekk am place ci dëkk bi loolu mooy les défis satan mais pas débat bi ma gis Sénégal tey c' boo xam ni Euh, de bas étage ah jiñ nañu kii def nañ lii il faut ñu xaam sutura kii il faut ñu tëj Sénégal waroon nañ dépassé fi tey. Hmm. loolu moo ñu daal je crois que nag loolu moom baaxul pour le Sénégal suñ ko rectifié wul nag je crois à la croisée des chemins. Hmm. bu ñu def tànk deux mille vingt trois bi dina nekk année bu metti pour Sénégal. alors que du prix la ñuy xaar ñi nga xam ni tey ñoo yore Sénégal. Hmm. bu weesoo coow loolu yëpp li topp kon tukki Marine Le Pen bi waaye ñu gis ni am na fi mu fekk ci Sénégal wala bokk njiitu réew mu senegal muy fexe ba Afrique daal di am toog ci conseil de sécurité mbootaayu xeet yi ndax loolu tamit mënuñu ko jàpp ni ponk bu am solo la ci tukki bi. waaw mais xam nga xam nga sama réponse ci côté boobu dafa catégorie xam nga Afrique waxuma la sax Sénégal Afrique n'a rien à attendre de Marine Le Parce que en termes de gouvernance globale, Marine Le Pen n'a pas de leçon à apporter. Marine Le Pen mënul jaay dara en termes de gouvernance globale dans ce monde mondialisé parce que bokkul ak moom li muy dox parce que sur le plan diplomatique Marine Le Pen mënul indil benn soutien au Sénégal sur les enjeux géopolitiques géostratégiques du moment loolu aussi il faut que Sénégal yow Marine Le Pen day ñëw Sénégal il faut mu wax lu neex Sénégal mënoo taxaw naan gis nga Marine Le Pen su sañoon nit ku ñuul dadul exister sax bay bokk ci benn instance de décision kon il faut que nit ñi xamee ko noonu Marine Le Pen euh, xoolaatal la morphologie de Marine Le Pen bëgguma sax di verser dans ces détails là Marine Le Pen du ku ñuy déglu Marine Le Pen du ku ñuy toogal Marine Le Pen du ku ñuy fréquenter Marine Le Pen amul xam-xam c'est une tête vide gisoo euh, euh, c'est juste euh, parce que les les politiques français dañu dañu échoué dans leur idéologie classique loolu indi tey Euh, Marine Le Pen mais ça boo demee deuxième tour ñëpp sog ko parce que quand la France ma rappelé c'est la c'est le pays de la déclaration universelle des droits de l'homme mënuñu concevoir dëkk bu mel France xoolal France tey mbégte bu France am même ci wàllu la nga gis nit ñi fa taxaw tey nga gis ku ñëw di saaga nit ku ñuul kooku kooku kooku kooku nga foog ni tey ci monde bi ñu nekk tey ñu wax ni monde mondialisé la kooku am na am na am na am na lu mu fi wax tey wala ak leçon bu muy joxe bay ñëw di visiter Sénégal nga xam ni damay wax ni c'est une terre Sénégal porte d'influence la je crois que loolu erreur la ça a été une hmm. euh, ci gàttal naka la diaspora bu Sénégal wala diaspora africaine dundee tukkib euh, Marine Le Pen bi ci Ndakaaru. waaw mais électrochoc la ah une la wax euh, ñun depuis bërk bi Marine Le Pen duggee Afrique ba léegi man mën naa wax ni noppaliku amul façon coup de amul façon kuñ ci woo ba ci tubaab yi sax. la preuve en est que la presse européenne gisoo ñoom ñëpp dañ ma ci assaillir ni ma non mais voilà Boubacar lii lii lii lii la kon tey dama jàpp ni audience bi euh, pour nous africains euh, c'est une audience de la honte am na sax ñu wax ni c'est une haute trahison c'est aussi une insulte à la mémoire de tous les Africains tombés sous les balles de l'extrême droite ñaata Africains la ñu rey en Europe ci photo politique ñoom Marine Le Pen bii nga xam ne dem na ba wër Europe ba tey c'est l'ex c'est c'est domino dëkk yi nga xam ni sax amuloon extrême droite sax léegi am nañ ko ñaata sénégalais tey lañu rey en deux mille vingt deux bi plus de trente quatre soixante pour cent yi Europe la amee lu ci bëri c'est des crimes racistes c'est des crimes xénophobes kon tey ku mel ni Marine Le Pen recevoir ko fii ci biir Sénégal dama wax ni c'est c'est vraiment suicidaire la démarche baaxul c'est une grosse erreur te loolu ñoo ñu la regrettons beaucoup au niveau de la frontière. waaw ah, mais ñun nag dëkku teraanga la ñu de dañuy teral ñëpp. waa dëgg la dëkku teraanga waaye nag euh, ak koy teral parce que dégg nañ fi ay nit euh, di défendre l'avenue de Marine Le Pen. xam nga hmm. gis nga mbir balaa nga ciy dugg da ngay xam ni ngay wax xoolal Marine Le Pen li ñu njëkk wax ñoom. Hmm. Euh, bis bu ñu duggee. bis bu ñu yéegee même transfert de fonds yi yónnee Sénégal dinañ ko arrêté euh, Jacques jàppal dëkk bu mel Sénégal nga xam ni diaspora bi moo koy def famille boo nekk am na koo xam ne mu ngi ci diaspora bi. Hmm. di dundal mu ne yooyu yëpp daf koy arrêté kon kon jàppale Marine Le Pen mooy bañ sa bopp. Hmm. ñun nag ñun dañu am problème bu nit dee gas ñeneen a ngi yàq te li ñuy yàq seen bopp la ñuy yàqal kon Marine Le Pen taxawal di ko di ko di ko dooleel. di cautionner son discours mooy lor doomu sénégalais yi nekk bitim réew mooy lor Sénégal moo tax balaa ñuy wax souvent euh, Sénégal dëkku teranga la d' accord nañ mosoo dégg horizon sans frontière di dugg ci détails yu mel nii mais avec Marine Le Pen on pouvait pas se taire parce que jàppale Marine Le Pen mooy toroxal Sénégal mooy toroxal doomu sénégalais yi nekk bitim réew mooy toroxal waa Sénégal Marine Le Pen du ku ñuy ku ñuy recevoir et je et je et je pèse encore mes mots jàppale Marine Le Pen erreur la ñu dugg ci discours boobu ñu ngi dugg ci discours yoo xam ni vraiment dañuy yàqal sax ñu fi nekk parce que amul kenn ku d'accord ñu recevoir Marine Le Pen fii Sénégal hmm. lu dul nag ñoo xam ni euh, ñoom ñoo xam li leen tax a jóg ak la leen tax a wax hmm. mais je crois que euh, nañu xoolaat ñun suñu bopp hmm. nañu xoolaat ñun suñu bopp ay doomu sénégalais la ñuy assassiné du fait de la mauvaise politique ak mauvaise influence Marine Le Pen kon tey kooku taxawu nga koy jàppale c'est parce dañ ko deful sa mbokk Mm-hmm. ay doomu Sénégal yi di dundal seen njaboot fii yow nga ni man de du duggee pour ñu ñëwaat pour ñu bañ fukkaat pour ñu mën a kiyaat ñoom ñëpp dinañ arrêté même li ñu yónnee alors que am na ñoo xam ni tey balaa ñooy lekk ñu yónnee leen France xaalis loolu erreur la ba pare ñii di wax ñëpp gis nga soo lee bëri gis nga bu Marine Le Pen yéegee mm. ñoom ñëpp kenn du fa teg tànn France moo tax gis nga bu ñoom le Sénégal n'a pas compris le sens de notre combat lu waaye ku nekk wax on respecte les points de mais nag nañ def attention nañu def attention parce que ñun ñoo nekk Europe ak ñooñu ñun ñoo fa am ay doom ñun ñoo fa dëkk ak ñoom kon am na loo xam ne su dalee suñu kaw suñ ciy xeex suñu mënul jàppale ñu taxaw di ñu seetaan mm-hmm. moo gën. jërëjëf yow yaa njiital Horizon sans frontières Boubacar Seye ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf Jacques.